maag moom li ci des du ma dugg ci détails yi moom comme ci daara ji la jóge euh, man dama koy bàyyi ak yàlla rek ak conscience am yàlla danañu àtte parce que nettali xuloo sax xuloo la. Hmm. mais comme àndoon nañu huit mois bu dee benn fan sax mu mosoon naa neex kon man ma jàpp li jot a neex ak li ma jot a jàng ci moom euh, ma jëndee ko li mu def ba kook boppam man ma dox sama doxum bopp. waaye daal jàppal ni euh, du rek euh, que tu es du daara euh, que tu es meilleur au politicien professionnel ndeke nit dina jóge ci daara jóge sax fu ñuy wax kokki te dans pratique politique mu gën a yées sax ni ñu tuddee les politiciens. xanaa doon ànd gis-gis ak li nga fi wax ci programme ak. waaw tout à fait li nga fi. waaw ci ay gis-gis. àndandoo foofu laa wax. absolument waaw waaw est-ce que loolu ëpputoon parce que su ma doon dégg ngay wax mooy ni seen àndoo boobu ni ngeen àndee ci gis-gis ak ni ngeen dëppoowee ci la war a soppi réew mi mhm. moo ëppoon fuuf que seen i waaw lu war a mën a dox ci yéen loo xam ne xëy na man du loolu moo ma intéressé man c'est pas le plus important man li ma intéressé mooy ni ngeen àndee woon ni réew mi leen tax a jóg mhm. am ñenn ci waa réew mi ànd ak yéen ci loola mhm. man ci loolu rek laa yem oh, maanaam ne est-ce que du loolu mhm. que su melee nii mooy ni kon loolu en réalité feesul woon seen bët oh, loolu fi ngeen ko tegoon yeggul woon foofu kon en fait man de loolu laa jàppoon xam nga ah. euh, Serigne Boub euh, on était dans une approche euh, complémentaire en fait man ak moom Euh, parce que su ngeen ko fàttalikoo bu baax euh, Serigne ba muy doog a commencé candidature am nit ñu bëri fulaalu ñu ko woon maanaam joxuñu ko li ñu tuddee crédit euh, yàlla suturaal nañu ma nekk cay wax la ñu tëggoon lépp ci suñu programme ñun ma bàyyile ko nekk cay wax yàlla suturaal ñu. ba ñu tollee ci caution bi ñu déposé ba ñu tollee ci parinage bi ñu dem c'est-à-dire qu'au bout de huit mois euh, jox nañ ko crédit que mën naa nekk su l'angle des ruptures épistémologiques man loolu laa jàppoon hmm. te loolu laa jàpp ba léegi parce que profilu sëriñ ci boppam rupture la en soi bala ñuy ñëw nag ci méthodes yi ak façon de faire yi ah. waaye man dama jàpp ni peut-être hmm. Euh, est du moom dafa jàpp ne ca la ma soxla woon. Hmm. Euh, loolu moom agsi na ci et que par voie de conséquence soxlaatuma euh, daan may tappaas histoire ba ni cay demee demee yëpp xamuma mais en tout cas li ma mën a xam daal maa ngi mooy maa ngi ibbi saay bët di xool. bis bu élection amee. Hmm. deuxième tour am. mu dem jàppale Amadou Ba. Hmm. su boobaa danañ ci gën a mën a waxtaan. Ah ah. nga jug foofu séqi jéego ginnaaw gi tey nga xëy ni léegi jomaay la. Mhm. léegi nu ngi ci Ousmane ko waaw absolument xam nga euh, Ousmane euh, euh, sunu borom mooy dogal ci la muy dogal moo xam ban waxtu la koy dogal ndax julli heure la bu heure bi jotagul de su ko julli. Mhm. te sunu borom dogal ni nit koo xam ni da ngeen euh, daje ci piyoon mhm. boobu dafa fekk ngeen bokk yoon ndax nit ku ngeen euh, bokkul yoon du ngeen mën a daje ci piyoon mhm. ma jàpp ni Pastef mhm. ak góorgóorlu dañoo bokk bi yoon nu ñu bokkee bi yoon mooy loo am am am Pastef ab xarañteef te boolewu ci góorgóorlu Pastef ga mën mës naa mën naa des ak looy góor góor góorlu te góor góorlu gi boole woo ci góor góorlu gi mën naa des mm. kon donc ma jàpp ne euh, la Youssou Ndour doon wax naan yàgg-yàgg danañu daje mm. oh, xamoon naa ni yàgg-yàgg góor góorgóorlu yi ak Pastef danañu daje parce que euh, y a y a y a deux raisons en fait une raison subjective et souvent une raison objective mm. la raison subjective mooy chez nous góorgóorlu yi li ñuy gëm ñun mooy les ruptures pour ñun Sénégal mënatul ak wéy ci nii muy wéyee. il faut que ñu def des ruptures ñun du ñu gëm mooy le principe de l'altérité soppi doxalin. Hmm. ñun gëmuñu li gars gëm naan homme d'état su fekkee homme d'état mooy la durée euh, bi nit di def ci institution état hmm. ñun gëmuñu loolu ndax mën ngaa def ay durée te fekk yoo mooy loolu. Hmm. ñun gëmuñu apum ñàng ku sori. ba ñu naan ay. Euh, fii la jàngeek fee la jàngeek yooyu. Hmm. Euh, du ñu ko rejeter mais du suñu premier niveau de d'analyse. Hmm. Euh, gëmuñu tamit trop trop trop li ñuy tuddee jaar jaar. Hmm. mën ngaa nekk ministre nekk député nekk assemblée et cetera naam loolu baax na mais ñun fi ñu toll fi réew mi toll Sénégal toll fa dafa am leneen lu sut loolu. te ñun loolu nañuy seet. mooy lan mooy ku jub tey jubal. aujourd'hui Sénégal dafa soxla njiit yu jub tey jubal. Hmm. Sénégal dafa soxla njiit yu yërëm seen askan bëgg seen askan mooy ñu tuddee patriotisme don de soi Sénégal ñaari valeurs yooyu mooy moo war a nekk les valeurs fondatrices de la nouvelle république bi ñu war a samp léegi nag après nag ci la yeneen yi di ñëw en complément jaar-jaar connaissance ay affaire homme d'État ak yooyu mais au nom des principes de l'altérité au nom des principes des ruptures ce dont nous avons besoin le plus dans ce pays là mooy nit ku jub parce que ñàkk jub hmm. ñàkk am ay njiitu jub rek moo ñu dugal ci guute gi ñu nekk nii ba tey jii mënaguñoo organiser élection présidentielle te suñu constitution wax ko boo gisee suñu situation économique nii mu bindee nii ñàkk am njiit yu bëgg seen réew bëgg seen askan yërëm seen askan moo tax tey li fi xew yëpp di fi xew. Hmm. effet de détournement ak mal gouvernance ak yooyu pour ñun il foo faut de vers euh, ci paradigme yu bees et paradigme yu bees yooyu piliers yi mooy jub tey jubal euh, ak patriotisme don de soi te loolu euh, gisoon nañ ko ci sëriñ mais malheureusement on s'est lourdement trompé sur l'homme Euh, mais tey gis nañ ko ci Pastef moo tax tey ba ñu sunu ànd ak Serigne boobu euh, jeexee. Hmm. Euh, ñu def le deuil parce que en séparation dafa metti on a fait le deuil pendant un mois et demi war a jógaat nag parce que la vie noonu la ay épreuve la. Hmm. jóg nag bi ñu jógee nag di wër lañuy wër fu ñu ko gisee mooy Pastef fu ñu ko gisee mooy Ousmane Sonko. Hmm. fu ñu ko gisee mooy Diomaye. Euh, bi nga xam ne Ousmane Sonko moo ko euh, moo ko désigné mu nekk candidat donc bi ñuy waxtaanee ñun góorgóorlu parce que ñun la particularité de notre parti politique mooy ñun amuñu ay militants en fait ñun ay ordre professionnel nañu am. Hmm. ay association des mécaniciens ay menuisiers coiffeurs marailleurs et cetera donc ñu c'est des ordres professionnels et pour l'essentiel qui évoluent dans ce qu'on appelle le secteur primaire agriculture élevage pêche et l'artisanat tey jii bi may ñëw fii ci yow nii. Euh, booy raxaskatu oto yi. fa laa demoon pour ñu def compte rendu point de presse yi. Hmm. gars yi wax li ñuy def kon donc man ñi ñuy tuddee soo métier. Hmm. man ñooñu ma yëkkati. comprendre nga donc euh, ma jàpp ne euh, véritablement ñooñu dañu am attente bu fort ci Ousmane sonk dañu am espérance bu fort ci Pastef man nag damay faral di wax ni. loolu xam nga ko laataa ngaa dem ci sëriñ boobu. waaw waaw mais moo tax moo tax ma ni la ñoom ñaar profil yooyu. bu dul woon kii di kee. mais nag ah. suñu borom moom mooy dogal. suñu borom moo ko nammee woon nii. parce que dès le début ñu bëri dañuy waxoon ne ñun góorgóorlu yi nañu dem euh, ci Pastef. dès lors que amatuñu moyen yu ñu acté candidat. mais le challenge était beaucoup plus appétissant avec Serigne Boub. parce que Serigne Boub ba ba ñuy commencé dañ ko doon dingat et bien comment je suis un homme de défi hmm. donc euh, et j'aime le challenge donc il était beaucoup plus compliqué euh, de prendre euh, la candidature de Serigne Mboup et d'y travailler et d'y apporter euh, sunu programme mais euh, comme yàlla nag loolu la dogal hmm. moom moo xam lu tax mu dogal ko hmm. mënoon na koo def ca njëlbeen ba mais léegi la ko def ñu ko ci sant di ko gërëm te léegi nag jël li ñu neexoon li ñu naqari yëpp gas fàtte nekk ci leneen voilà Serigne Mboup ñu ñaanal nangu nañ leen ko Diomaye nangul na leen loolu. Euh, waaw Ousmane nangul na voilà avant. Euh, ñu nag Pastef commencé wu ñuy wax léegi. Ah. Euh, d'ailleurs bi ñuy avant ñuy ànd ak Serigne boobu. boobu recevoir nañu mag yi Pastef yi boo fekk na Ousmane mi ngi ci affaire yi mu nekk nii. mag yi Pastef yi ñëw nañu. ñu recevoir leen waxtaan ak moom Serigne boobu aussi dem nañu fekk si ko moom d'ailleurs sax Sandaga la woon ñu ànd ak sunu task force bi. dem déglu ko waxtaan ak moom ba ñu kiwee. Euh, ma ne leen léegi euh, comme man ngeen jiital. Euh, nañ dem ñu liggéey ak sëriñ boobu. ba affaire yi demee ni muy demit ba separation bi am. mag yi Pastef et donc pour moi c'est le lieu de remercier euh, ñi ñëwoon seet si ñu. Hmm. Euh, am na ñaari rencontre balaa ñuy sant lii euh, bokk na ci biram ku jëloo qui n'a ménagé aucun effort tey jii su góorgóorlu yi demee ak waa Pastef c'est en grande partie grace à ñeenti yi ma lay war a wax li ñuy wax doyen Alla Kane. doyen Alla Kane ki ñuy wax Mayabe Mbaye. Hmm. ki ñuy wax ñam bi Sonko. Hmm. Euh, ki ñuy wax ay euh, Aysatu Ndiaye maire Ayda Ndiaye présidente femme góorgóorlu yi euh, mais aussi ki ñuy wax Biram Xujaloo juróom yi hmm. ñoo ñu ñëw seet si ñu waxtaan Euh, une fois deux fois euh, ba arrondir les angles te ñooñu du ñu def dara lu Ousmane yëgut ah. waaw du ñu def dara lu Ousmane yëgut du ñu def dara aussi lu Diomaye yëgut kon donc ma jàpp ne au plus haut niveau euh, yëg nañ ko pour man la plus important c'est le combat c'est le combat waaw tôt ou tard xanaa dina ci bokk ginnaaw oh. lii jéego dem seeti leen xanaa waaw waaw noonu ñun ñu sax Ousmane depuis mu nekk ñi nii par des canaux ñi ngi doon wax doon euh, wax euh, par le biais bon bon c'est pas la peine de dire son hmm. mais ñi ngi doon ñi ngi doon jokkoo xanaa kañ li bees rek mooy li mbër yi di wax léegi dëggal nañ suñu bopp euh, ñëw ci xeex bi ànd ko xeex te ma rappelé ni rek xeex bi hmm. ci fii ñu président Macky Sall dugal dafay laaj ñetti yi des tripes du cœur et de l'esprit voilà tey nag moom euh, jàpp nañ euh, euh, ce que nous pouvons apporter nous les góorgóorlu dans la longue lutte initiée euh, par le PASTEF. Mm. Euh, c'est les tripes d'abord euh, c'est le cœur ensuite mais c'est l'esprit aussi parce que euh, la stratégie et la tactique est très importante quand nous voulons faire de la politique aussi. Hmm. Euh, les idées gouvernent le monde. Tant qu'il est vrai que les idées gouvernent le monde, le monde. Euh, ouais. nous devrons y aller avec des tripes, mm. à, à, à, tous les sacrifices suprêmes. Hmm. mais aussi à aller avec le cœur, le don de soi, mais aussi avec, y aller avec la rationalité, c'est-à-dire la stratégie. D'accord loolu parenthèse la woon ba tey dafay fekk ji actualité waajal élection yi ñëwoon ca dialogue ba ñaari fan génn ne le 2 juin daal la gën. Mm-hmm. mooy dat bu baax bi ci seen gis-gis. ñuy xaar ba xam ndax loolu dana jëmm am déet déjà ci président Macky mu ngi koy apprécier waaye ginnaaw loolu it euh, ca conseil euh, constitutionnel mu tegu ci beneen mooy ndax da koy gunge am mandaam bu jeexee la dañuy xalaat leneen ñoom ñi doon jale ko ne da gunge. ba fii ak le 2 juin di jeex mu jébbal euh, euh, lenge yi waaye mu amaan leneen mooy ni dinañ confirmer les 19 candidats waaye mu am possibilité ñi ñu woote woon ni euh, seeni mbir dañ ko salfaañe dañ leen spolier yu mel noonu. Mm. ñu mm. yëraat seeni mbir am yeneen ci ay candidats yu mën a duggaat. Mm-hmm. mooy la ca génne. Mm-hmm. la ca tukkee ci ñaari fanu jalo yi mm-hmm. keroog ci lundi bi am na luñ doon ci premier euh, na lii moo ca génn mm-hmm. danga naan waaw lu war a mën a nekk la ci ña jalo geeg la ñu génne wala euh, mbetteel nga ci am waaw euh, mbetteel laa ci am te je ne peux pas ne Pape Assane Seck Pa ah. Assane ah. bi du du sunuy date awa date nañu jàppalub date euh, du datub conseil constitutionnel du datub euh, la majorité euh, askan bi kooku datub président la hmm. aywa date waaye kon président date bi moom aw datam la ah. waaye du datub askan bi hmm. du datum bi conseil constitutionnel wax ndax conseil constitutionnel de li mu wax defe naa leer na nee na daal tànn leen dat waaye fexe leen ba bu ngeen di tàndub dat hmm. euh, le de nay tombe euh, la ñu waroon def yëpp ñu def ko ba président Macky Sall def passation de service joxe lenge yi. Hmm. su président ñëwee nag jéggi fi le de avril dem moom ba le 2 juin. Hmm. Euh, romb nay datu conseil constitutionnel kon bokk te loolu mooy première chose. deuxième chose. et c'est ça qui est regrettable. c'est-à-dire que président Macky Sall gis nga fi mu ñu yóbbu. léegi euh, sunu institution yi euh, amatuñu valeur ci président Macky Sall. Euh, mm-hmm. sunu constitution amatul valeur ci.